damay génne waale photo yi won leen ñu xam waaw bisimilah ñu ngi lay dégg. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam sant yàlla alhamdulilah ma dañoo nekk fii bëggoon nga présenté wu déjà ah. kii moo nekk nii mooy wax ni waaw moom damay bugg damay nga présenté wu après nga expliqué dañ bëgg waxtaan ci l'affaire mussa Fall bisimilah. waaw waaw waaw bon am na lu ma jot a suivre léegi si li nga doon wax. Hmm. waaw non dama bëggoon nga présenté wu déjà maa ngi wane sa photo nii bëggoon nga présenté wu pour gars yi xam ni yow yaay wax. ah ok ok ok ok ça ça c'est bien man euh, Amar Sarr laa tudd man la gars yi doon wax un peu partout là naan adjudant Sarr bon j'étais adjudant chef. Hmm. ba bi may quitté gendarmerie euh, le 9 astafurlah le 6 novembre. 2023. Mm-hmm. Mmh. Mm-hmm. Euh, m'a totalisé 27 ans de service. Wop, pop, pop, pop. Machallah. 27 ans, j'ai commencé au bataillon de commando. ba ma def 8 ans 19 ans il maa ngi ko def biir d'accord mais lan ban problème nga am foofu lan ban problème nga am ak koko amal bon expliquer expliqué. euh bon defoon naa vidéo ah man boo gisee ma nangu parce que c'est la première fois sax ma ma ma def euh, genre intervention yi mais heureusement parce que bàyyiwuma rek ba yëf yi jeex ba Moussa Fall ñàkk doole mu mel ni dama si topp di di yàq der hmm. euh, j'avais fait une vidéo bi ma posté foog naa ñu bëri euh, suivre nañ ko sama page Facebook def ay post dénoncé lima ma ak Moussa Fall à titre individuel. ok. et ma intervention aussi pour nous permettre de koy yemale aussi ci man rek euh, parce que dina doy illustration dina doy exemple. d'accord. Euh, pour ne pas trop extrapoler parce que ak lu mënti aussi. Hmm. Euh, Vision. je suis encore dans les réserves.

défendre. Hmm. loolu dafay am si dundu doomu aadama foog naa firaaw na sax tey boo leen indi histoire am dina am foo xamante ne def na fa lu baax. Hmm. mais nit loo xam-xam xam-xam si moom lu baax am nga droit nga seedeel ko ko. Hmm. loolu dañ koy demander ku nekk. ba ci Moussa Fall am na droit bi en tant que être humain. Mhm. mais boo koy seedeel lu baax li nga ko xamal. Mhm. bu amee ñeneen aussi ñu ko xamal safaan di ko xarab yow amoo benn droit nga taxaw ne moom xamul lu bon musul def lu bon du tooñ ku jubla parce que boo defee loolu rek. Mhm. da ngay saaga la mémoire de ces gens là qui a opprimé. Naby Vision. te loolu xaw na dal kenn démb man mii sax jokkoo naa ak moom ah, pour bañ a tudd turam xam ngeen ki may wax parce que euh, dañ ma rapporter qu'il passe en plateau di défendre Moussa Fall bi ma dégloo man yor naa numéro am jokkoo nañu ci côté boobu laa ko wax nit ki défendre li nga seq ak moom mais boo nee lépp luñ ko waxal sos la rek yaa ngi saaga ñu mu joteel yaa ngi saaga ñu mu tooñ. vraiment. service laa def. yow mi ak ñeneen ñi suivre euh, live bi seetaan ngeen 4 avril 2023 may jot sama quatrième décoration croix de la valeur militaire à ce jour-là, médaille militaire hmm. devant le front de la troupe je euh, décoré devant le président de la république si 4 avril défilé loolu du n'importe qui moo kon mën naa wax tey bu ma demee ba guerre de gendarmerie mi ngi tukkee si li ma jotee ak Moussa Fall parce que deux mois après décoration bi au mois de juin la ma tëj kaso Naby Vision jiñ ma ma ni damay jël ay renseignements sur l'action de la gendarmerie nationale di ko yóbbul Ousmane Sonko cey yàlla toujours Ousmane Sonko c'était l'objet mhm. de l'enquête à la section de recherche brigade waaw section de recherche de la gendarmerie nationale yow yow pour pour pour pour demander daguma la euh, gendarme renseignement généraux nga wala comme comme Didier wala. non non non non déedéet. Ah. Euh, ok allez-y sur sa mémoire ma pour la petite histoire sama promotionnaire la. ndeysaan.

du saaga moom saaga loolu sama diggante ak moom la parce que comme ni ma ko waxee si vidéo bi rek maay jëflanteeg moom li may jëflanteeg moom ci suuf parce que je me suis assumé depuis le début. waaw da nga doon da nga doon saagante daal ba da nga doon saagante ba mu bloqué la quoi. non loolu moom man ak moom la xam na ok waaw léegi ñu dem ci histoire bi ñu dem ci histoire bi vite fait. non non histoire bi dañ ko jàllale ci Ousmane Sonko en réalité Ousmane Sonko mosuma ko xam. tey bu ma neexoon ma ne xam naa ko def le malin mais man du ma du ma sosal Moussa Fall malgré que li ma la wax boo ma joxoon paaka tey ma tër ko rendi ko devant tout le monde. Mm. ak weeru koor gi ma woor ndogoogu ma. Mm. yaa ngi dégg. Mm. mais moom daf ko jaarale si Ousmane Sonko parce que je suis très ami avec un des frères de Ousmane Sonko depuis 2014 boobu foog naa yéen ñi kenn xamul Ousmane Sonko. Enseignement généraux non Moi, je suis un spécialiste dans la gendarmerie n'est un gestionnaire hmm. comptable denier moi bon pour les civils trésorier ou en tout cas c'est Khalis la donne ok xaalisu gendarmerie ma Madame gérer vraiment des sommes euh, bon. la dafa am bon fi plateforme publique là, parce que y a des procédures en cours. am na loo xamante ni du ma ko mën a divulguer. Hmm. waaw demal demal allez loolu boo xew. Hmm. maintenant pour mu jëlee ma fi ma nekkoon ba a profité affaire yi. Hmm. ci wala ëppalam wala jaay doolem en tout cas il a commis l'erreur daal xool ne ah comme kii jege na rakk Sonko xëy na bu ko toppee côté politique bu ñu demee ba naxanteeg moom ba jot ay téléphone am ñàkkul ni dana fa gis benn message wala benn appel hmm. wala benn connexion bu bu dem ci Ousmane bu boobaa kon heure bi yéen day di dégg rek am na gendarme buñ fi jàppoon wala sax xëy na fàtte na ko. waaw parce que nag en réalité fi ma nekkoon bu ma defoon loolu yoon dafa war a dal sama kaw kenn waruma baal dara parce que nag dafay nekk loo xam ne faute bu diis la. Hmm. may ñu benn yoon nga am accès ay information gendarmerie di ko jox. Vision. On a ont, pris ma qui, comment dirais-je, audition. C'était le mercredi 7 juin. ma bon si on bi nous je ne ma ndax mën nga téléphone parce que aussi la procédure mayu amul une obligation pour ma joxe son téléphone mais j'ai consenti à remettre mes téléphones parce que je sais que je may laaj takkewu ma ko laalewu ma décider de code yi jox euh, comment dirais schéma yi dem suma chef de service yónnee sama ma ma ah digal da ngay dem dem di servir demande d'explication di ko servir demande de déclaration ne ko yow nga def wala dañ lay non non non euh, serviruma dara il a donné les ordres donc voilà bàyyil ba guddi ba ñëpp tëdd après bul wax kenn dara nga dem sa yoon. waaw foog naa volume bi boo mënee yokk tuuti gars yi ñuy wax volume am na ñuy wax volume xam naa seen portable day am problème nag ma ragal ci ñoom la mais boo mënee yokk tuuti rek ah voix bi. je ne pense pas mu nekk ok waaw. donc imaginel ki ngay tëj yow nooy tëjee nit kaso ci lu toll ni jamono te c'était le 7 le 5 là, amoon je crois les 9 mois je me rappelle bien. Hmm. le 7 nga jàpp nit ki nga ne da nga ko jiñ ci lu toll non. mais kooku yow bu fekkee li nga wax dëgg la mais kooku doo ko sax bàyyi. Hmm. boo koy tëj tey am nga preuve mais dang nga koy dugal si oto yóbbu ko. Hmm. mais nga ne ko non dañ lay sutural parce que chef nga ok légui bàyyil ba guddi nga dawal sa auto Medina ba LG Mbaaw nga yóbbu sa bopp kasso bo demee di nga fa fekk sa kay nga tëdd kasso xaar. léegi man mi nekk promotionnaire u Didier Badji Didier de dañoo jékki-jékki rek ñu ne ñu dem na kenn mësu ko jiiñ dara kenn mësu ko entendre fenn mhm. réer na rek la ci am am na loo xam ne nag ñun en tant que gendarme mënuñu ko wax sur une plateforme publique ok mhm. mais man mi ñu jot a ne ma dañ la jiiñ dañ laa soupçonné da ngay joxe ay information ndax man dof naa dof góor a mën a tax may taal sama oto di xaabar xaabar yi naan Cheikh laa damay dem kaso di yóbbu sama bopp

yàlla da koy maye après ma bañ ne bon man kenn du ma tëj di ma suturaal parce que buñ may tëj xam naa ne liñ ma jiñ defuma ko dugal leen ma si oto bu ñu bind gendarmerie yóbbul ma seen bopp lu ma dal lu ma fa fekk nga xam ne samay seen loxo laa nekk. Hmm. nii laa demee kaso ma dem mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi sama yaay génn àdduna. Hmm. waa ñuy dégg. ok. Euh, euh, yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Mhm. amiin <clears throat> passage boobu man moo déstabilisé sama vie parce que mardi laa jógee village ci sama yaay mu génn hôpital ma dem yendu ak moom munul woon wax bu may yegg si Dakar sama sœur woo ma man sax dem naa bay defaat marché arrière foog ni maire bi dafa génn àdduna ma bàyyil ma ma woote rek ba xam lan la parce que appel yi bëri na lool parce que bi may dawal jëlu moon sama téléphone. Hmm, boobu mu ne ma yow dem rek sa yaay yeewu di la yow rek la doon laaj ma ne ah problème suba mercredi bu ma xëyee ba ma naan sama sœur bi sóoraale ma añ comme ça man bu ma wàccee rek après je continue là-bas ba tey gisuma mère bi. kon mercredi boobu lañ la yóbbu daal mercredi boobu lañ la jàpp yow mercredi bi nga war a dem seet sa yaay. mais laa fa jógee mercredi lañ ma jàpp beneen mardi bi ci topp mu gaañu. pop pop pop ma metti na waaye. nekk ci loolu bi may dem yegg dëkk ba gars yi li jënd dugg bàyyi ma ne leen comme dañ ma tëj ma woote dëkk ma xaar bàyyi say loxo. Hmm, hmm. loo xamante ni man bu ma tëbee tëb dem retour bi wala yoon bi lu ma dal rek. man ñu ay soldat lañ am na détail ayoom duñ ko mën a wax comprendre nga après sama faute lay nekk luy am am na ba pare bu may dem village fekk naa sama yaay suul nañ ko bàmmeel laa tim ma ñaan li may ñaan ma ne comme demee na nii. Hmm. man comme man maay taaw aussi amul problème métti na métti na mais nañ def sarax bi troisième jour parce que ñun d'habitude dañuy dem ba ay une semaine huitième jour ma ne leen non na safura dañ ko def le même jour. dañ ko def le même jour parce que. si ay loxo laa nekk te problème bi du lu ndaw xaw ma lu muy jur ëllëg. boobu yow Moussa Fall dugal na fexe na ba dugal la ci kaso bi. Hmm. maa ngi doog comprendre lu tax nga naan bu la tegoon Moussa Fall nga rey ko maa ngi doo comprendre lu tax. waaw vas-y. loolu daju ma si daju si après bon ma ñibbi si noonu ñu saraxee le même jour ma toog trois jours ma ñibbi si ok continuer sama kaso ba fii may wax ak yow. ba fii may wax ak yow. recherche woo ma delloo ma samay téléphone après comme gendarmerie laa nekk vingt sept ans imaginel xam naa. oui yi commencé ñëw ne ma non vraiment gars yi dañ la tooñ mais si téléphone yaa rien ma leen man magum jëm kenn résultat bu jógee sama téléphone. Hmm. man ba léegi xaw ma ni lan la ko ah moment boobu xamaguma sax affaire xaalis la dama ne non lii sérieusement je ne sais pas lii la si laa demandé pour dem gis hmm. mu bañ ne du la gis demandé mu bañ. waaw léegi man bi ma génnee kaso ñu notifié ma sama mutation ñu ne ah Moussa Fall de affecté la Kédougou mais li si gën a neex di may dem Kédougou laa xool mutation bi xam nga lan laa gis. Hmm. man Moussa Fall le le la ma tëj mu xëy le huit mu signé sama mutation. Hmm. dans les normes bu fekkoon li nga ko jiiñ moom moo ko def da ngay dem conseil d' enquête yéen a comme par exemple capitaine Touré nu mu amoon problème ñu ne conseil d' enquête après gars yi dàq nañ ko ñu jugé ko truc truc mais noonu la waroon demee. kon mm. kooku loo koy affecté ki nga war a dàq kay mais loo koy affecté. Mm. donc moom déjà il savait que xam na lu muy def man dafa bëggoon rek ma jógee ci poste bi mu xaw ma napp xaw ma taxal ma nekkee tàppet waaw nga mujjee ak nan ak moom après noo mujjee ak moom. li ma mujjee moom mooy bi ma waree dem Kédougou ma ne non man nag damay sol sama daal dem na jàkkaarloo ak moom te yàlla surtout def na sutura keroog bu ma duggoon bureau kon heure bi xam naa ñi ngi wax leneen. waaw moom mooy boo c'est normal ah bo leen ko rayal mu ray leen rek ah da ngeen da ngeen seetaan de trop tamit aussi. militaire da ngay dee mbala nga dund quoi.